frère bi moom parcelle la nekk euh, Macky Sall day rey ay sénégalais wala du leen rey xaar leen léegi rek lépp leer xaar leen léegi lépp leer xaar leen tuuti rek ma woo xaar leen tuuti. allo mon frère. moom mon frère yow responsable nga ci jeunesse su Pastef ci jeunesse su ma Pastef sax parcelles n'est-ce pas. waay waay waay. oui sànq ñu ngi doon dëggante téléphone mu am ben affaire bo xamanteni ni daf la jaxal, mané la foog ñu waxtané ko ci suñu direct bi tay, n'est-ce pas. waay waay Légui nak sénégalais yépp nga lay déglu dama bëgg yow li nga remarqué fofu, euh lula jaxal nga wax ko sénégalais yi mëna a xam quoi bismillah ma bàyyi la nga présenter wu.

Euh, ñu xëy benn jour ñu gis parcelle ñu koy pompé di ko pompé un peu partout ñuy pompé bon xamuñu nag pompe yi lan la dañoo xëy rek gis temps bi yëpp saxaar mu mel ni lu am brouillard gaa yor benn pick-up solo protégé wu du pied à la tête ñu protégé wu ñoom carrément mais ñun dañoo exposé wu ils nous ont pas averti waxuñuñu euh, suñu yi nekk ci mbedd yi di jaay cere euh, ñii di jaay tablier mburoog tooyeeg mburoog ñebe yeeg ci waa xam nga parcelle c'est la banlieue donc ñu ñaa ngi actif nit ñaa ngi dox seen soxla temps bi ñëpp ñu circulé ñu jékki-jékki gis benn pick-up buy tourné biir parcelle ñaar ba ñett di tourné di pompé parcelle léegi man dama ci tombé bi may génn ñu ngi nekk ci oto bi ñu nekkee ci oto euh, dañu ubbiwoon vitrine bi léegi moom mu ngi devancé suñu kanam pick-up bi bi mu dóoree pompe bi dóoraat pompe bi man j'ai respiré ba ma ko respiré directement bi ma ko respiré nga ne bi nga xaaral dañ la nekk di dàgg dee ni bi directement rek dafa jàpp sama produit. sama produit la jàpp parce que produit bi dafa am doole. dafa am doole quoi. cela veut dire que c' est un produit toxique. c' est pas c' est pas c' est pas nit waru ko nooy loolu laa gëm. voilà bu ko nooyee mu jàpp sama bët bi sama beneen copain bi di sëqat ñu yëgal vitrine oto bi vitrine oto bi bi ñu yëgal vitrine bi taal clim bi pour mun a évacuer affaire bi affaire bi gën a compliqué mais on a ñu dem mais affaire bi jaaxal ma quoi léegi li ma ci constaté mooy ma ne pourquoi ñoom ils se sont protégés ci produit bi nooy wuñ ko sol nañ ay masque sol nañu comme kii avec le problème du Covid 19 ni ñuy masqué wu sol sol genre kii tout blanc yooyu noonu mel ni genre ninja yooyu kenn xamul ñu ne loolu donc ñoom ils se sont protégés mais ñun ñun dañu exposé wu ba pare suñuy ay doon jaay tere ak ñi doon table yëpp lekk yaa ngi foofu noonu ñu pompé noonu dem seen yoon bi ma ko nooyee après une semaine deux semaines man je me la ma def jàpp suma gud bi jàpp suma yaram bi sama tànk yi di tàng sama ci biir yaram bi di ruux yi di ruux carrément affaire bi def ma bopp yi jékki-jékki bon je me suis tombé malade vite fait heureusement dama dem ñu jox ma ay gar kii wu olof naan ma taxalal nii après ma jël euh, perfusion laa mujjee jël deux perfusion laa mun a stable pour mun a doxaat bi may posé parce que ñu bëri ils m'ont interpellé ça au niveau des Parcelles Assainies ñu bëri woon nañu mais mais gars yi ni ñuy compé la man ah, man je ne comprends pas souvent dañuy gis benn affaire dañuy gis nawet bi bu ñëwee bu tawee ba mbënd bi ñëw dëkk bi yëpp tooy mbënd bi salte euh, paludisme gars yi dañuy pompe genre pompe yi dañ. Mm-hmm. comme benn yoon la taw donc amul mënd taawul inondation dara amul yooyu yi demeewul noonu un constat boobu laa njëkk a def deux beneen constat bi ma jël mooy pourquoi ils n'ont pas averti woowu ñu ñun ñi def benn tournée demee kat. à vingt une heures dañuy pompé parcelle wala dañuy pompé Dakar donc na nit ñi dugg wala ñi ñi jaay lekk nañu évacuer seen lekk yi wala ñu bàyyi ba ñëpp tëdd pompé comme ay yoo la ñu bëgg a taxaw c'est pour santé nit ñi mais li ñu def nii nekkatul pour santé nit ñi parce que tamit danger la pour nit ñi produit toxique boo xamante ne bu ko nit secondaire seen biir donc c'était pas c'était pas c'était pas cohérent On a da ngay xeex ay on ba pare fekk nit ñi toog da leen di pompe ay produits toxiques depuis lors nag ñun dañu seetlu ay cas de grippe yi nga xam ne au niveau des Parcelles Assainies man personnellement de mon côté produit bi nooy naa ko mu sommes en train ma jël ay perfusion xaw tane mais au niveau des parcelles te bu amee ñu may déglu ñu dëgg parcelle comprendre nañ li may wax ni ça fait deux semaines ci ginnaaw parce que beaucoup de gens m'ont interpellé par rapport au pompage boobu noonu li tax gars ñoo parcelle donc on n'avait pas compris légui nak ñun ñi la ça c'est quoi pompe boobu lu ko waral